a jot moo leen vidéo boo maa ngi ñëw jottali leen communiqué numéro 44 du talaata tey bii fukki fan ak ñeent ci weeru avril 2020 ministère la santé action sociale jot na résultat virologique yi nga xam ne maa ngi leen koy jottali. ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test réalisé juróom-ñett ñoo dellu si positif yooyu ñu ngi leen koy tegtal ci juróom-benni cas contact yi nga xamante suñu service yi ñoo leen di saytu ñaari cas yi nga xamante ne ñoom ñu ngi jóge ci transmission communautaire juróomi malade yi nga xamante ne ñoom ñu ngi leen enteré woon si suñu hôpital déclaré nañ leen négatif te wër nañu seen wërgu yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas ñoom lañ déclaré positif ci Sénégal ci yooyu ñu ngi ciy génnee ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett yi nga xamante ne wër nañu ñaar ñoo ci génn àddina benn lañ ci évacué ci loolu donc li nga xamante ne moo des mooy ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ministère la santé et l'action sociale bu Sénégal mu ngi ñaax askan wi ñu doolee topp li nga xamante ne moom la ñuy wax mesure de prévention individuelle et collective mooy li nga xamante ne moom lañ mun a aar ci feebar bi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.